وجهت كلي بحمد وشكر إلى ولي المؤمنين وشكر وجهت كلي بحمد وشكر إلى ولي المؤمنين وشكر سيدنا محمد سلجاه العظيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم mbokk yi asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu ñu ngi leen di baalu xaq te di leen ko baal tey ñaan borom bi subhaanahu wa taala mu boole ñu jégal ñuy jiital ci noyoo yi ak ziyaara yi Cheikh Moustapha tey ñaan borom bi subhaanahu wa taala mu yàggal ko fi ba mu yàgga taxawe lii bi barakatil abdil xadim noonu la ñuy ndokkeele ummatu muhammad sallallahu alayhi wa sallam gépp ci guddi gi tey ñaan borom bi subhaanahu wa taala lim ci diggee yàlla nañ ci dajeek moom bu ko defee tomb biñ ñu joxoon nag ngir ñu waxtaane ko moo di az-zikru wa samaratuhu muy tudd yàlla ak meññeef yi mu am tudd yàlla nag day li gën a foor ndax borom bi subhaanahu wa taala moo wax ne wala zikrullahi akbar kon lan mooy tudd yàlla tudd yàlla ibnu ajiba nee na mooy fàtte sa bopp jënde ko borom bi subhaanahu wa taala ci dëkke dawaamul xudur bañ ko fàtte moom la waxoon ne istigraaqu zaakir fi suhudil maskuur am ñu ne tudd yàlla de mooy gën ci càggante dem ci teewlu yàlla at taxallusu min al gaflati wan nisyaan bi xudur bi dawaami xuduril qalbi ma al xaq muy lu am solo lool doon loo xam ne mooy dalal ab xol ndax borom bi subhaanahu wa taala moo wax ci alquraan ne ala bi zikrillahi tatmainul qulub moo tax ibnu abbas ne yàlla jégalul kenn ñàkk koo tudd kenn it amul ngan ci ñàkk koo tudd lam yu'dar ahadun fi tarki dikrillahi azza wa jalla yonent bi sallallahu alayhi wa sallam doon wax naan na ngeen di tudd borom bi subhaanahu wa taala ba ñu jàppee ne da ngeen a dof ak siru zikrallahi xatta yaqulu majnun waaye yonent bi sallallahu alayhi wa sallam it wax na ci beneen xadiis ne xanaa duma leen tegtal loo xam ne moo gën ci seeni jëf gën caa sel gën caa kawe ci seen boroom gën caa rëy daraja gën ci yéen ngeen dépassé urus ak xaalis gën ci yéen ngeen dajeeg seeni noon ngeen faat leen waa ñu faat leen ba ñu ko laajee loolee lu mu doon mu ne loolu mooy zikrullahi mooy xadis bi mu wax ne ala unabbiukum bi xayri amalikum wa askaaha inda malikikum wa arfaaha fi darajatikum wa xayrun lakum min infaaqi dahab wal wariq wal waraq wa xayrun lakum min an talqaw aduwakum fa tadribu anaaqahum wa yadribu axnaaqakum qaalu bala ya rasulallah qaala zikrullah kon zikrullahi am na doole lool loolu tax Sëriñ Tuubaa doon wax naan ama dawaamu zikri fa huwa akbaru min kulli ma kaana al muridu yukthiru qad qultu dalika bila israari wala ubali bi dawil inkaari ba dama demee ba ca biir ne wa annahu bidayatul wilaya wa tarkuhu nihayatul gawaaya kon ndeke tudd yàlla fi la wilaaya tamle waaye abul qasim al qusari nee na tudd yàlla mooy umudul fiqri doomu aadama bu fekkoon nit am na umda comme téeréb Cheikh Moustapha bi nee na al umda fi tariq mooy zikrullahi te kenn du ak ci yàlla lu dul da ngay tudd yàlla borom bi subhanahu wa taala mu ne ak zikru ruqnun qawiyun fi tariqil fi tariqil xaq subhanahu wa taala bal huwa al umdatu fi hada tariq wala yasilu ahadun ila allahi taala illa bi dawaami dikri kon loolu moo di zikrullahi di màndargaam bëgg yàlla ndax yonent ba sallallahu alayhi wa sallam moo waxoon ne man ahabba shay'an akthara min zikrihi waaye Sëriñ Tuubaa noon xayru taami lil muridi saaliki dawaamu zikri dil jalaalil maaliki ñam wi gën ci ab murid mooy saxoo tut borom bi subhaanahu wa ta'ala moo tax benn aarif billaahi waxoon ne képp ku bari looy tut borom bi subhaanahu wa ta'ala bari leer képp ku bari leer say sekkere sel képp ku say sekkere sel ngay ngay nga nekk ca xadratullahi subhanahu wa taala man kasurat azkaaruhu kasurat anwaaruhu wa man kasurat anwaaruhu safat asraaruhu wa man safat asraaruhu kaana fi xadratillahi qaraaruhu waaye yonent bi sallallahu alayhi wa sallam itam noonu na ñiy tudd yàlla lu bari day jiitu nañ ñu ne ko ñan ñoo jiitu mu ne mooy ñiy tudd yàlla lu bari sabaqal mufarriduun qiila manil mufarriduun yaa rasulallah qaala al mustahtaruuna bi dikrillah mooy ñi bari ñu lu ñuy tudd yàlla borom bi subhanahu wa taala waaye yonent bi it laaj nañu ko ne ko waaw jan jihaad moo gën a mag ob daraja fa sun borom subhanahu wa taala jan ci jëfi saalixiin yi moo gën a mag op daraja fa suñ borom subhanahu wa taala ayul mujahidina azamu ajran qaala aksaruhum lillahi taala wa taala zikran qiila ayu salihina azamu ajran qaala aksaruhum lillahi taala zikran kon looloo tax nasrul abadi wax ne mboolem jaamu yàlla yi borom bi subhanahu wa taala da ko wutal ay waxtu ba mu des tudd yàlla borom bi subhanahu wa taala tudd yàlla moom dana tuddal yàlla di ko biral di ko yellu di taxaw di toog di tedd yooyu yëpp ay maraaxil la ci tudd yàlla waskur rabbaka fi nafsika tadarruan wa xiifa wa doonal jahri min alxawli bilxudwi wal athal wala takun min alxaafilin ibnu kathir bi muy firi laaya jooju nee na li ci borom bi subhanahu wa taala jublu mooy bari looy tudd borom bi subhanahu wa taala waaye yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na amul leen loo xam ne waa aljanna danañ ko rëccu ci waxtu yu leen faatoon fii ci àdduna lu dul tudd yàlla borom bi subhanahu wa taala lan yataxasara ahlul janna ala cheyin illa saatan marat bihim lam yaskurullaha azza wa jalla fiha tudd yàlla nag xam naa waxtu wi day dem ba xaaj yi mu am duñ ci ñëw duñ ci jaar noonu rek lu demee ni zikru bil lisaan zikru bil qalbi ak zikru bil lisaan wal qalb imaamu Shaaraani nee na mbooleem kilifay tariqa yi daje nañ ci ne tudd yàlla mooy li nga xam ne bu ko jaam bi saxoo day dem ba ni nit ki ragale seytaane yàqal ko la seytaane di ragale nit ki nga xam ne bu ko jegeetee day say ni doomu aadamay sayee mu ne ijmaa ijmaau ijmaa alu tariq ala anna dikra ida tamakkana min alqalbi saara seytaanu yusrau ida dana min aldakir kama yusrau alinsan ida dana minhu seytaan fa yajtamiu alayhi shayatin fa yaquluuna ma baaluhu fa yaqul innahu min addikri fa sara kon ndeke tudd yàlla am na doole ba tax saabu nit ki bu ko seytaane jegeetee day say jinne yi dañuy say buñ ko jegee yi nga xam ne dañuy yàq bañ buñ ne waaw kii lan moo ko jot ñu ne daa jege ku doon tudd borom bi subhanahu wa taala ñu ñëw kon ginnaaw bu ñu waxee leen ci aadaabu dikri bi ñu waxee leen ci am solo su tudd yàlla am am solo kon ñu ñëw ci li nga xam ne mooy aadaabu dikri aadaabu dikri nag al imaamu Sha'raani tënk na ko ci ñaar fukki adab juróom yoo xam ne mooy jëkk balaa nit kee tam li zikkar ak fukk ak ñaar yoo xam ne ci biir zikkar si la ak juróom ñaar yoo xam ne ginnaaw bu zikkaree la wala juróom juróom yi nga xam ne ginnaaw buy tam li zikkar la ba ca jiitu mooy at tawbatu nasuux nit ki balaa soobu di tuut di tuut borom bi subhanahu wa taala da war a jiital tuub gu sell ba ca topp mooy laab gu sell ba ca topp mooy dal amuk dal ba ca topp mu ne ginnaaw bu tamlee zikkar nag balaay tamli zikkar mu yéene tëbb ci sëriñam te jàpp ne tëbb ga muy tëbb ci sëriñam mooy tëbb ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam tegin yi nga xam ne nag buy zikkar la koy def mooy ni ki toog fu laab jublu xebla su ko manee toog toog yi nu kuy julli bu ko manee xeeñal lu neex béréb bi muy zikkare xeeñ ko moom ci boppam waaye mu ne tëj mbooleem ay cëram ba du xalam lu dul borom bi subhanahu wa taala dal di tamlee nag mel ni lu tasxiis ab sëriñam teg ko ci kanamam di ko teewlu yooyu mooy aadaab yi nga xam ne ginnaaw buy buy zikar la koy def jéem a génne ci xolam maa si wallaahi subhaanahu wa taala bu dee teggin yi nga xam ne nag ginnaaw bu zikaree ba noppi la koy def tudd na la ca lu demee ni toog ab diir ginnaaw bu zikaree ba noppi xool ban waarit moo ñëw tuddnal cel it lu demee nii bañ a naan lu mel ni ndox ginnaaw bu zikkaree ba noppi ndax dañ ne loolu day la lakk day fay xaali zikkar diir boo muy toog nag ci lay xool ba xam ndax waarit ñëw na wala ñëwut comme ni ko imam Shaarani waxe kon yooyu mooy yi nga xam ne ñooy gàtt ci gàttal aadaabu zikri yi nga xam ne imam Shaarani tudd na ko ak zikri nag yan meññeen la am boo demee ci téere boobu di alwaabilu sayib ibnul qayim aljawsi tudd na ca lu toll ci téeméeri njëriñ yoo xam ne zikar am na ko jël nañ ci ci gàttal fukki njëriñ ak juróom ko ko bëgg a détaillé boo demee ci téereem boobu ibnul qayim def danga ko ca fekk kon tudd yàlla li muy jëkk may nit ki mooy ngëm yàlla ndax borom bi moo ne alaa bi dikrillahi tatmainal qulub waaye tudd yàlla day maye yaqiin doyloo yàlla ak gëm ko day wàcce yërmande ci ki koy tudd wala ñi koy tudd loolu itam xadis la yonent ba sallallahu alayhi wa sallam moo wax ne maa min qawmin yaskuruuna allah ilaa xafathumul malaayika wa xasiyathumur rahma amul ñenn ñoo xam ne danañu tudd yàlla lu dul malaaka yi dele naa wér yërmande suñ boroom di wàcc ci ñoom waaye tudd yàlla itam day joxeeg dal day joxeeg dal ci doomu aadama bi ndax la mu tëje xadis ja mooy wa nazalat alayhimu sakina ak dal day wàcc ci ñoom day tax itam tudd yàlla bokk na ci njëriñam day tax borom bi subhanahu wa taala di la tudd fa moom nga nekk toogaaleem suñ borom subhanahu wa taala ndax ba ndax yonent ba sallallahu alayhi wa sallam moo wax ci xadisul qudsi yonent ba sallallahu alayhi wa sallam wax ne ana jalis yàlla wax ne ana jalisu man dakare nii man maay toogaaleeb ki may tudd xadis bii ma doon wax itam fi ko borom bi fi ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam tëje mooy wa zakarahumullahu fi man indahu yàlla da koy tudd fañu faña mu am waaye tudd yàlla itam day waral teraangay yàlla ak barkeem di wàcc ki koy tudd wala ñi koy tudd ndax am na xadis boobu yonent bi saa sallam da cay wax naan bu ëllëgee yowmul qiyaam suñu boroom danaan yaqulu rabb yowmul qiyaama sa yuclamul jamcu man ahlul karam fa qiila wa man ahlul karam ya rasulallah qaala ahlu majalidi dikr bañ ko laajee ñan ñooy ahlul karam mu ne mooy ñi nga xam ne ñooy dappetoo tudd suñu borom subhanahu wa taala waaye tudd yàlla itam day daq cheytaane ndax borom bi moo waxoon ne wa ida qara'ta alquran ja'alna baynaka wa bayna allazina la yu'minuna bil akhirati hijaban mastura waaye ibnu qayim ne tudd yàlla yitam day dindi njàqaare ci xol day bij mbégte jëmale ko ci xolub ciy tudd borom bi subhanahu wa taala waaye nee na tudd yàlla day dolli warsag wu ñu mën a gis ak wu ñu mënta gis tudd yàlla day may hëyba ak wegeel ci ki koy tudd waaye tudd yàlla day seppi ay ñaawteef ci ki nga xam ne da koy tudd yaxutul xataaya wa yusibuha waaye tudd yàlla day leeral xar kanam ndax Cheikh Abdul Qadir Jeylaani waxoon na ne maa fil maa fi sirri yasharu fi ruux wa maa fi ruuxi yasharu fi qalbi wa ma fi qalbi yazharu fi wajhi mu ne nag tudd yàlla day may leer day maye leerug jëm waaye tudd yàlla itam ni muy maye leeru xol lay jege ñale kii tudd borom bi subhaanahu wa taala ndax moo waxoon ne ana jalisu man dakarani waaye tudd yàlla itam day tax borom bi subhanahu wa taala di la bàkkoo faña mu am kon lim ci indi ci njëriñ bari na lool waaye fukki tomb yooyu ak juróom lañ ci indi woon kon xam naa foofu la ñuy daanele jeetaay bi di jéglu bu baax a baax asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu
wa sahabati wa man istafa wa radiyallahu taala an cheikh alxadim wa nafaana bi asalaamualeykum wa rahmatullah mbokk yi noo ngi leen di nuyu lu bari loolu di leen siyaar ci guddi gu tedd gii di laylatul qadar muy guddi goo xam ni guddi gu am solo la te ni ñu ko taxawoo ci barab bi yaakaaru na lool kon noo ngi yalwaan yàlla rek ci nin ko taxawoo yàlla na ko yàlla nangu ci barkeb sëriñ bi di saar baax a Cheikh Moustapha sahibul umda di ko ñaanal bu baax sunu borom àggale yéeneem ci li mu naaral yàlla muy alxuraan muy ñaar fukki daara ak juróom-ñett yi nga xëy doo ko naaral naaral yàlla yàlla na ko yàlla dimbali te dimbali nu ba mu am ci lu kawe jortam te naa koog moom di sant mboolem mbokk yi nga xam ni ñoo taw teew ci barab bi ànd ak ñun liggéey bu sell bii di ñaan yàlla rek yàlla dimbali bu déwénee lu waaye mënal nga mën lu ko rek te teewaat ci barab bi yàlla ñaan yàlla sunu borom tabaraka taala mu def na ay julit xaqan yu topp sariya topp xaqiqa saxal nu ci liimaan lislaam lixsaan bi jaxi siid wujud wa qadimihi di sant sëñ bi bu baax ci kàddu yu am solo yi mu xay tënkanu ko muy azikru muy fàttaliku yàlla wala tudd yàlla ndax ala bi sikrillahi te te te dama indil xulóob maanaam nit bu dee tudd yàlla day am sécurité loolu nag lu lu lu gàtt lu xay maes na koo xam nit képp koo xam ni day fàttaliku yàlla foo ko fekkee day am kaaraange day am xel mu dal ndax waman arada an dikri yi fa inna lahu maysatan danka nit bu fàttee yàlla rek yàlla def ab dundam muy dund bu dund mu naq lay dund dund boo xam ne foo ko fekk mi ngi dang dangi fi ne nit bu dee tudd yàlla di bàyyi xel yàlla su amul dépense suba sax amul problème du ko bàyyi xel ngir lan yàlla ji mu wéttali ko moo tax lu am solo la di tudd yàlla waaye nag comme ni ko suñu faari waxee am na sikkurul jawaarix am na sikkurul xalbu moom na yooyu moom ay bagaasam la sikk tudd yàlla bari na tudd yàlla say cër ak sa xol ak soo làmmeñ nga xam ni kon ni ñu waxee ni am na salaatu ruhiya am na salaatul badani am na salaatu xalbiya kon askar yi am na ci yoo xam yu kawe kawe kawe la ñoom aarif aarifoona billaahi moom ñoo ko xam donga yi xamuñu ko waaye am na ñoo xam ni doo gis ñu tudd yàlla ta fu fu fu la fekk ñu ngi tudd yàlla ñu maam ñu ngi fàttaliku yàlla loolu nag baatin la waaye li gën a am solo mooy sa xol bi nga ci bàyyi nga ci bàyyi xel yàlla di di yëg yàlla foo mën di nekk foo mën nekk na nga ànd ak yàlla di yëg yàlla sa xol ak am solo jàmm yàlla gu goo goo goo xam la maanaam kenn xamul fi mu fu mu yem ndax Sëñ Tuubaa nee ci masalik se as seen saa rek nga fa nga xatlu nga xalaat ci suñu borom tabaraka taala moo gën ngay ngay ngay julli téeméeri rakka kon jàmm yàlla gi nekkul ci xarakaat yi ana fu mu nekk mooy di bàyyi xel yàlla foo ma di ne xam ni yàlla mi ngi lay gis mi ngi lay dégg nga nga rus jëmmam jë ba sa juróom-ñaari ci doo doo ci mooy yàlla ndax xam nga ni yaa ngi jàkkaaroo yàlla soo waxee loolu dëgg yàlla xam na soo dee wor yàlla xam na soo dee wuruj yàlla xam na yëpp soo ko dee bàyyi xel di tudd yàlla nag da ngay dem ba soxol bi day set wicc te ab sa ab xol nag bu xasee set wicc nag amatul kiiraay ndax dañu dañu ni alaway maxfuus mi mi mi mi ngi ci kaw lu koy liir ab xol bu set ay bët du ko gis xol moo koy gis xol nag bu fekkee nag fexe nga ba amul bàkkaar set ne wicc da ngay mën di liir di yëg di gis di xam yàlla yàlla dimbali dimbali leen te boo leen si gaañee wasalaamaaleykum wa rahmatullah
ya bihamdin wa sukur mu doon mu doon kon guddi gii rek tëdd na lool ku ko mënoon guddi yu lépp da nga koy tëdd nii waaye ba ba ba ko mun rek léeg-léeg nga dàq guddi rek def ko. waaw ndax yàlla guddi dañ ko xam rek def nga jëw yu waaw bu ko suñu doon gërëm yëpp ful ko mën naa bari lool mën naa sax doon sax wàccuwaay lu leen xatal ndax ba leen xatal moom du lu may rek guddi gu mat loolu rek la kii la nanga wàcce loolu lépp sax kii na waaye du dara tee mooy guddi mag rek guddi boo xam ne dañ dañ ciy ful ful guddi gu mën na baax guddi gu mën di doon Abdoulaye moom Massoud moom nee na sax kat léegi du xadar dana génn weer koor ah kooku kan nga war ci maanaam léegi ci saxaaba yu mag yi kese boobu nee na moom léegi du xadar mën naa génn koor waaw loolu nag kon bu kenn nag jàpp nañ daal ne kat jàpp jàpp ne kat keneen ku ku def lu dul li nga def du dëggul noonu la. déedéet li nga def noonu la kay ndax teg ko ci imaam li nga def teg ko ci imaam waaw loolu am solo la kon dañoo bëgg a def nag am naa fi lu boo xam ne ka ma ko jëlee ka ma ko jëlee kañ ñoom la wax naa ne kat buñ ko defee. su bis pencee te ni waa ul xam ni la ñu nekk yaakaar naa nag ab sëriñ nekk naa nag mooy yéene ne ñëpp njëriñu wax ne wala génn ñëpp ñu bëgg xale wala génn su bëgg kenn du rus ci noonu kenn du rus kenn ku nekk yaakaar naa nag ah man man man de man wax dëgg yàlla bu sori bokk man yéene woon naa gaa yi aw yiw ndax du ma xam ci lu baax ci lu wér ci li man danaa leen ko baax ah lu wér ci li man lii nag moom ci la ko moom yow bi na ci ci li man waaw waaw nga ne moom kon da nga yaakaar koo xam ne ñeent bàkkale lay doon si si waxoon naa la dinaa bëgg mu jëriñu ko ndax da daa bari te moom gone la mën na koo daal di def ci ci lu gàtt moom bu dee mën na moom day gudd lool waaw te te te te gone it moo gën a wóor gone boo xam ne jombul ci set ga wicc sa ñaan gën a wóorul mag wala waaw mag moo xam nga mag moom bu takku ci fët fàgg na waaw gone nag moom bëggu sa xol waaw kooku nag kon ak ñaanama gën a wóor ñaanam mag kooku kooku kon kooku kooku kon jumlaa ñu yéen ñëpp rek képp koo xam ne yéene woon naa ñëw rek waaw foofu maa dina ci ne yéene nañ ko fii xam-xam nag dañ koy gàncax nag xam nga dañ ko koy taxis du du ko ubbi nag mu mu ne mu ne jàngal ji rek dañ koy taxis tegle ko ñi ñi am yéene yi ñëw ñëpp rek yàlla ñu dugg. bu ñu rek teg nañ juróom ñaar fukki junni yi daal di leen lay moom yi liggéeyal ko sëñ Bamba ci xeetu stratégie nationale. ci daa ub boo xam ne ni yaa bëgg naan loolu boobu ñu def ko bu bu ñu it ma ne ko moom xaj bi ñu ñu dem fukki junni ak ñaari basmala yi moom ci daa ub li li li mu di waaw waaw nga xam ne ni yaa bëgg naan yaa ngi si si xaj xalifatulaay bi at yi mu ko yow da nga man maa jàpp ne maa war a defal sëñ Bamba loolu man man ah man kooku adhérement la man la maa jàpp ne sëñ Bamba li ko war ci xeer bi man la war ndax maa ko déggal kooku loolu mooy la léegi peut-être tout dara nomination nomination la boo xam ne du ñëpp ko bokk yàlla nañ ko dund yàlla nañ ko xam yàlla nañ ko gëm yàlla nañ ko jàpp. murid nag mooy ko am engagement kooku engagement la kooku murid kon te waaye dañuy doon murid bàyyi dañuy xam ne ëpp. yaa ngi doon ma ñaaw rek liñ ciy daw yàlla lu suñu sax teew ca ca diwaawul xamdi Muhammadal Kiram nga xam ne ci ci njiitu si Seydina Aliou Salaam ci ci teew Cheikh Makhadi ak ñu sant ñun ñëpp rek ñu ko jullee suñu bàyyi yaag ñi ñi jiitoo ñëpp rek ak ñi fi nekk yàlla yi ñu sa bokk waaw kon moom léegi baax boobu bu déwénee rek incha allah taala bu bu fekkee jàmm rek ci topp ko ndax ndax dafa gudd yaakaar naa yaakaar naa ndopp gi ginnaaw moom du wàññi dara kon kon kon may na ko yaakaar naa dafa xam naa kon mel na ne li li góoree yaakaar naa kon kon daa ko mën a waxtaan bi dama ko xool moom moom xool nga xam ne yéen day dana amatam yëpp waaw xam ah ndax daan fekk
وجهت كلي بحمد وشكر إلى ولي المؤمنين وشكر